Seex Mustapha santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay te ka ngaayoo ci Mustapha fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci nelaw yaa Mustapha ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi ña daa xiiru ak ñay seen gëñ ya foq jërë ngeen jëf ñu ngi leen di bu baax di leen ziare di leen jaajëfal xam ne ñu ngi euh, ko doon liggéeyee rek chaque année bu màggal gi jub muy ab commission bu am solo boo xam ne ëmb ñëpp ñoo xam ne dañu nekk ci euh, euh, daara ji muri Touba wàcc def seen kuréel gu am solo goo xam ne euh, defuñu ko lu ngir liggéeyal sëñ Modou Moustapha tey nag fi lañ nekk euh, fas yéene waxtaan ak ñoom liggéey bu am solo bi nga xam ne ñi ngi rek waxtaan ak sama jëwriñ maa ngi lay fay soxna si ci kuréel gu am solo gi nga xam ne jamono ñu toll daa mel añ yaa ngi ñëw njóobeen kontaan kontaan nañ lañ lan ngay wax ci seen kuréel gu am solo gi nga xam ne ginnaaw boo présenté. waaw man maa ngi tudd Cheikh Dongo maa communication bi mbooloo mi ngeen fekk ci muy jamaatul saadi sadiqin loolu nag euh, tur wi arab la waaye ci wolof li muy tekki mooy mbooloo mi nga xam ne dañuy wut yàlla jëm ci yàlla te dëggal ci wut gi loolu lay tekki ci wolof maa ngi nuyu waa diwaan ñëpp. ngeen di def liggéey bu am solo en même temps di leen gërëm ci liggéey yu am solo yi ngeen def parce que it noo ngi leen di seetaan di rafetlu liggéey bi. Euh, fii ngeen ñëw mooy tokkooru Sëñ Cheikh Gaynde Fatma nekk ci ruut de Belel foofu itam ngeen nu fekk nii euh, jamono yi nga xamante ni bii ngeen di yegg si fii itam toll nañ ci euh, di song digg bëccëg gi. nun nag suñu liggéey ci màggal gi nga xam ne mooy màggalu Serigne Touba Cheikhul Khadim gi loolu it li tax ma di ko leeral mooy ñu bari ñuy wax màggalu Daarul Xudoos màggalu Daarul Xudoos la naam ndax loolu leneen la loo xam ne des na ko mën a leeral sax waaye jotaay yi laaju ko waaye ñuy fàttali ne bis bi sëriñ Touba Cheikhul Khadim ak ñibbiseem fii ci Touba sëñ Modou Moustapha indi ko moom lañuy ñuy màggal gi màggalu sëñ Touba la màggalu sëñ Touba la sëñ Touba la ñuy màggal ñëpp ci lañ yaatu na nag ba yaatu googu moo waral nun ñii ngeen fekk fii di menn mbooloo moo xam ne koo fi gis fii dongob tarbiya la boo xamante ne bi dafa takkoon diggam laxasaayu dem wuti ngërëmal yàlla ci daara yi tarbiya ba dellu si ci kër yi ak ñi nga xamante ni bii ñi nga ci laxasaay gi ba léegi maanaam soppileegu lañ leen digal ñu dellu ci kër yi ak seeni soxna nag ñooñu ñu juddoo ci seen biir doon ay doom nga xamante ne bii tam jëlaat nañ yóbbu leen ci daara yi ñooñu njaboot googu njabootuk ahlu tarbiya ñoo dajee fii ci kër sëñ Modou Moustapha rawatina ci kër sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma rawatina ci kër sëñ Mbacke Soxna Lo ci ndigal lul sëñ Moustapha Mbacke moom Mouhamed moom sëñ Mbacke soxna loo lii mbooloom la foofu ngeen du fekk nii ndigal lii it doon loo xam ne mooy taxawu bisu màggaluk sëriñ Touba Seexul Xadim gi day isro mu aram di ñaar fukki fan ci aw tam xarit ñu nekk ci fukkeelu bëccëg bi ak euh, juróom-ñeent di song guddi ñaar fukki insha allahu ci kanam tuuti mu war nekk guddi goo xam ne ku fàttaliku la ca xewoon da xam ni ngay màggale mooy Serigne Touba bis boobu dafa bisi woon fii ci Touba sëñ ma Moustapha indi koy def ci njàmbaar gu mag def ci fit def ci xam-xam di ko am courage waaye doonu it loo xam ne lépp loo xam ne am na ci yoonu Mauritanie ñu di ko màggal fii ci Touba laa wax bis bii moo tax ñu di ko màggal ndax sëñ Touba bu ñëwul woon Touba fu mu nekkoon kon fa la ko murid yi fekk kon sëñ Modou Moustapha mi ko indi ci dëkk bi ba tax kuy wax Touba nekk gi fi sëñ Touba nekk a tax. kon loolu njàmbaar ak sëñ Modou Moustapha la ba tax na kuy ñëw Touba Koumar war ngaa wax na jërëjëf sëñ Modou Moustapha gis nañ berne yi bari na café gi bari na tey kuréel gi nan la ñu lëkkalooyee bay liggéey liggéey bu solo ba pare berne yi bu leen ko defee pare fan ngeen koy waaw kuréel gi mbooloo moomu daayira la daayira nag day nosu dafa am benn président actif am ay commission dafa am benn comité euh, boo xam ne saa bu magal gi ñëwee commission yooyu ñu dajee kenn ku ne ak liñ la dénk maanaam dafa am balaa bernde yi dafa am commission d'organisation commission d'organisation nag bernde benn sous commission la ci mooy commission bi ñuy wax restauration mais dafa am intendance en même temps dafa am accueil hébergement dafa am installation ñoo ñëpp bu ko defee sous commission bi nga xamante ne moom nga laaj ne nga xam ne ñoom ci commission boobu la ñu dépendre li nga xamante ne bii moom la ñuy toppatoo bernde yi itam ci suñu poche yi lay jógee sëriñ bi daf ñoo wax ne di leen taxawu bis bi du caagee ni moom day yëkkati xaalis du ñu jox ñun dañoo war a liggéey ci bis bi mbooloo moom kenn ku nekk ay daayir lañ yoo xam ne tasaaroo nañ ci réew mi ba bitim réew noo fa. noo ngi Dakar en même temps noo ngi Kaolack noo ngi Touba noo ngi Taïf noo ngi fii nga gis nii mbooloo mii nga fi gis ñëpp dëkkuñu Touba ci ay section lañ jógee ñëw fi jëwriñ ji moom ngeen romb ne muy sëñ Baarloo moom sëñ Matloo Mbéri bu ko defee itam ñoo ñëpp kenn ku nekk danañ la wax ne nangam war nga koo def muy saw sas ci màggal gi bu ñu ko defee ba noppi kenn ku nekk dara wëlbatiku li ko bis bi jaral mu jaayante am na ñoo xam leen sas ba noppi ñu jaayante wat aw nag fii am na fi ay nag yoo xam ne nit a ko jënd ay 600000 ay 400000 def ko ci seen propre moyen noonu la ñuy liggéeyee ci bis bi financement boobu foofu lay jógee. bernde yi mi ngi jëm ci képp ku fi toogal sëñ Modou Moussa Mbacké ndax ñoo ndigal li ñoo ko jëlee woon ci sëñ Mbacké soxna loo moo nu ko digaloon jamono sëñ Xaadim Mbacké moom sëñ Modou Moussa moo fi nekkal sëñ Modou saa tey jii sëñ Ahmadou Mokhtar moo ko fi nekkal yàlla na fi yàgg lool te wér démb it lañu tàmbali yëf it liggéey bi ñetti fan lay doon démb yóbbu nañu ay xewel ci bëccëg gi yóbbu nañu ay xéewal ci guddi gi tey jii noo ngi waaj nii ak guddi gi incha allahu suba itam mooy bisu jeextal magal gi danañ yóbbu añ bu ngoonee nu yeewiku incha allah loolu mooy liggéey bi ak fi muy jëm maa ngi leen di delloo jaajëf. ña xiiru ak ñay seen gëñ ya nañ. sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nan ko Mustafa ña daa jamar ak ña daa xaatim nañu seen xam-xam ya far toppi Mustafa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek ka far jekki Mustafa su fekkoon da ngay laaj carte sey candidat ni wiiw ne yaa wat ña eh? daawoote ña daawaate eh, Mustafa ñi ngay woo nee eh, nañu waaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Seex Amdi Mustafa ci waaw mbaa ci waaw waaw ci woo woo nga tollu tey ku ñëw ree ku jëkki jooy ndeyaa doon Mustafa wolof nee na woote bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Mustafa wolof nee na ko am xel nangu dem telefaan nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji Mustafa la Seex Bamba noon waa réew yàlla ma wooteloo ku dib dof na tuug ni xil wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaak siqiya cuuja kulluhum borom gamba baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi musa bi mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa mustafa ku fay nag jikkoom war naa liggéeyal si mustafa cheikh mustafa gee junganeel waaju ak si duy ku mar bay xondooj yaa tey ma wal fa mustafa ndoxom maa ngi wër tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi mustafa ma nga yeesalaa tuuba bi tajdiidi diinihi yërëm ndaw ña magal mag ña moo doonu mustafa di sayloo jigéen ña denculoo góor ña kulluhum di leen san di leen seetal na ngeen santu Moustapha lu waay soxla boo fay dem muy faj loola saatan tabeek topp yàlla ak diine fa Moustapha kila am médaay fi saayirin bada baatinin inaayatahoo xablal wilaayati Moustapha allo waaw allo waaw allo waaw. bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci tuuru Serigne Ahmadul Mokhtar ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha lu nekk ci kanamu njabootu Cheikh Moustapha wala na wax benn baat ñun ñëpp nañ maase wax ni Serigne Ahmadul Mokhtar yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko yàlla defal ko ak bëggam moom ak njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gépp ñu wax ak yéen tuuti nag wax ju gàtt jëmee ko ci li nga xam ne moo tax nu daje fii tey mooy liggéey bu rëy bii nga xam ni yàlla moo dogal Serigne Mbacké Mouhamed tàmbali woon ko ci njiitee fukk sëñ Xaadim Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Moustapha ba ko jiitee it ba bàyyi koo fi Serigne Moustapha mii ko yor tey jëbal mbooloo mii indi teraanga yii ci kanamu kilifaam jii di sëñ Ahmadou Moukhtar sëñ bi naa waxtaan ak yéen ci kàddoom wax leen li nga xam ne moom lay wax mu jëm ci moom liggéey bi nag nii la tëddee. <coughs> bisub tey jii nga xam ne mooy màggalu Daaru Xuddoos ñii ni màggalu sëñ Cheikh Gaynde Fatma ñii ni màggalu waaye màggalu murid yëpp la ñu xamal ko nit ñi ndax màggal gi nga xam ni ci la Serigne Touba ñibbisee Touba jóge Njaaréem Cheikh Moudou Moustapha defar ko la mu bëggoon bis boobu la Cheikh Moustapha wax ni bu ñëwatee nañ koy fàttaliku ci jàng alxuraan jàng xasaayit julli ci yonent bi def ay bernde teral njaboot gi loolu mooy sababu màggal gi kon sëñ bi lii ñu fi indi tey mooy bi ñu jàngee alxuraan ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett dañoo jàng sindi bi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar jàng muwaahibu téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent jàng jës juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent jàng muxadimaatul amdaa juróom-ñeent fukk ak ñaar jàng miimiya ñeent fukk ak benn jàng bu kaana aqan juróom-ñeent fukk ak juróom ak juróom-ñaar Taysirul Asir jàng ci ñaar fukk Jalbatul Muraqib ñeent fukk ak ñaar Matlabul Fawzayni jàng nañ ci fukk ni jàng nañ ci fanweer Nuuru Daarayni jàng nañ ci juróom-ñett Jawartu jàng nañ ci téeméer ak fukk Salaatu ala nabi def nañ ci juróom benn junni ak juróom-ñetti téeméer loolu nag di lu rëy ci bis bi sëñ bi nee na ngeen wax Cheikh Moustapha ni ko mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm mi ngi koy ñaanal moom njabootam gépp ndax jëf jii nga xam ni moom la jëlee ci sëñ Mbakke Mouhamed yóbbu na ko foo xam ni kawe na jox tam moom sëñ bii toog nee na fu ko sëñ mu fu ko sëñ Mbakke yóbbu woon weesu na ko gën na koo yaatal gën na koo rafetal gën na koo baaxal juróom ñaar fukki bool yi la ñu indi mi nii boole ko ay teraanga yu bari kon sëñ bi nee na ngeen santal ko sëñ Moustapha te gërëmal ko ko te mi ngi koy ñaanal te mu ngi koy bàyyi xel Cheikh Moustapha nag jërëjëf lu tax doon na maamam ci bisam bii def na ci loo xam ni ci ay teraanga te bañ ko tàmbaleeg léegi teraanga ju gën a koy Moustapha kon sëñ Ahmadou nee na mi ngi koy sant te di ko gërëm te di ko ñaanal waaye di sant nag doomam yii nga xam ne ñoom la àndal di santit ay sëtam di sant cheikh yi kër gi yëpp bàyyiwu kenn képp koo xam ni sa yaakaar mooy buntu Cheikh Mouhamadou Moustapha sëñ Ahmadou nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal taxawaay yi rafet na jëf rafet na daal bëgg mën na sët nee na yéen ñëpp na seen xel dal fu waay toll na nga wax amin te ni aajo yi ngeen di indi fii yàlla dana ko faj ci barke Cheikh Mouhamadou leen di sat leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ñaan la gi ci déwén fekkaat ko fi ñu seeraat ko ànd ak moom mat kii yàlla maye ko dañ ko bëgg